alors phénomène bi ñu gis fan yi euh, des jeunes yuy def ay cocktail molotov euh, di dem di yor ay kalachnikov di attaquer des domiciles de gens euh, di di di tirer di jéem a créer une guérilla urbaine des jeunes qu'on utilise comme mercenaires pour s'en prendre à des biens publics et privés phénomène boobu ban commentaire la la la la la la inspiré wax du ci delluwaat ça va arrêter parce que ce sont pas des Sénégalais qui se man mënuma wax lépp parce que nous avons les téléphones sont là. ce ne sont pas des Sénégalais. les gens qui sont venus qui ne sont pas de Dakar ont reçu chacun cent mille et les mandats ne viennent pas d'ici c'est des mandats qui viennent des mandats qui viennent d'où? je je peux pas parler parce que. oui mais oui mais oui mais Barthélémy il faut édifier les gens c'est des mandats qui viennent d'où? Maïmouna vous avez posé des questions je vous ai répondu dañu am kër gaañi am kër. ñu am njaboot gars yi am njaboot ñu am ay oto gars yi am ay oto vous le refaites vous ne le referez plus jamais c'est tout gis nga bëccëg la journée là tout le monde fait du bruit la nuit c'est la nuit tous les chats sont gris les Ivoiriens disent que si tu prends le chemin de je m'en fous tu vas te retrouver au village de si je savais les histoires de guérilla urbaine ça va arrêter ici à Dakar c'est moi qui vous le dis. vous en prenez l'engagement. moi on ne m'attaquera jamais. et je vous dis la prochaine fois il y aura pas de gens qui seront livrés à la police c'est tout. nous sommes assez outillés nous sommes assez organisés pour ne pas tomber dans le piège de certains idiots de service du fi am. la dernière question. et je vous rajoute une chose am na lu ñuy set. parce que moi j'ai encore des images et des flashbacks qui me reviennent du ma ñëw sa kër gis sa yaay mu mënoon ma jur mu wax ma lu ma lu seddal sama xol ma wax ko tamit lu baax mu ñaanal ma ma ñëw sa kër sa ay soxna teral ma ma ñëw sa ay ma ñëw sa kër sa doom yi wàcc sol seen dàll pour nuyu ma loolu du ma ko fàtte ba abadam mais bul moo fontoo laa la wax fa laa yem ci wax ci si tu le refais tu le referas plus jamais et essaie encore tu vas voir